ay leeral ci mbiru ki nga xam ni moo di Aïssatou Faye ci lu jëm rek ci corruption ba nga xam ne dañu ne dafa daal di impliqué ñaari officier policier loole nag tax police daal nay daal di génne ab communiqué di àddu ci mbir yooyu wante it di xamle mbir yi nag rek la daal di demee niki démb kër taskatu xibaar yu ci bëri nag daal di traité boobule mbir ba tax nag boobu la information daal di viral lool police nag tey daal nañu daal di génne ab communiqué di indi rek ay leeral mbir yi naka rekk la daal di demee ñoom ñoo ñeen sax ci seen communiqué boobee nag daal nañu daal di xamle li nga xamante ne si moom la ñu ci bëri daal traité démb wute na loola ak li nga xam ni noonu la mbir yi daal di demee. mbir ya nag daan nay daal di doore niki rek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril 2024 bi ci ay booru 13h ci la rek le commissariat ci la le commissariat urbain bu Kébémer daal di woon recevoir ki nga xam ne nag moo di ay Aïssatou Faye moom moomee sax na ba mu ñëwee dafa daal di xam ne rek ne victime la d'une extorsion de fonds ci koppar gu toll ci 300 000 francs CFA ci ñaari policiers yi nga xamante ne si nag dafa daal di woon dajeek ñoom ci circulation bi. niki rek ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ci ay booru 15 heures foofee nag ca Kébémer ca boobule audition moom kookay di Aysatu Fay daan nay daal di xamle sax ni bi nga xamante ne si nag yooyu les policiers ñu ngi def seen contrôle routine moom nag ci lañu daal di découvrir rek ni moom xale bu jigéen boobee nag mu ngi woon ak koppar gu toll ci vingt et un de francs CFA. ci loolee nag ci lañ ko doon laaj rek ana fan rek la daal di jëlee boobule koppar ak ci yan activité rek lay yëngatu bu mun a am koppar gu toll noonu. ñaari agent police yooyu sax nag daal di koy xamal rek ni amul droit di dox ak koppar gu toll noonu lu toll ci vingt et de francs CFA naka noonu it daan nañ daal di xamle ca loolee sax ñaari police yooyu sax nag daan nañ ko doo nekkoon di ko menacer ci li nga xamante ne si nag moo di ay poursuite euh, pénale ba tax ñoom ñooñu nag fexe nañ euh, ba jël ci xale bu jigéen bi koppar gu toll ci trois cent mille francs CFA fexe nañ daal ba doon ko tiital ci ay rek li nga xamante si nag moo di ay poursuite penal ba xale bu jigéen bi daal leen di jox lu toll ci 300 000 francs CFA. ca ay investigation yi nga xam ne nag chef de service bi daal na koy daal di mëne loolee nag daal nañ daal di tax mu mun a daal di identifier ñaari agent policier yooyee sax nag ba daal leen daal di incriminer wante it daal leen daal di introsé ñoom aussi it daal nañuy daal di xam li rek ne jot nañu koppar googee nag ci femme boobu wante nag mais de manière gracieuse. ginnaaw seen ay investigation ñoom autorité policière yooyu nag daal nañuy daal di xam ne dinañ jël bépp mesure disciplinaire nag daal di koy teg ci ñaari fonctionnaire policier yooyu nag ci nu mu gën a gaawee Nabi Cargo GP adduna yéen ñëpp dégg ngeen Nabi Cargo yéen ñii fii ci Sénégal mooy jël seen bagage yóbbu ko états lépp lu ngeen bëgg yóbbu États-Unis ci diir bu gaaw fépp nag ci biir États-Unis laa la wax de noonu la Nabi Cargo taxawee te li mu lay yóbbul du am benn problème dala la ko yóbbul états ba ci état yi New York Ohio Atlanta Californie waaw waaw li ko tàmbale un kilo ba une tonne loo bëgg a yóbbu États-Unis Nabi Cargo mi ngi taxaw te bu dee enveloppe ngay fay te laaj ma lu gën a neex sa bagage bu yegsee ci ngay soog a fay gaaw leen contacter gaaw wala www.nabicargo.com Nabi Cargo GP dina indi tamit ay bagages ci réew yi nga xam ne moo ñu wër yépp gàmbi Mali Mauritanie wala boog Ghana ah Nabi Cargo mooy yóbbu sa bagage yi fa nga ko bëggee ci États-Unis